wa naxwu xayin lu mel ni xayin nga xam ne yaa gi benn xarafu ko dawlu xayu wa tayyu wa lay nga bëgg koo def tur woo xam ne da ngay askanee laf jëme ci kon da ngay fatxu saanihi yajib nga mu mujj di xayawiyun ndax dañoo nettale ni bi nga ne xaya genn yaa gan fokk mu soppiku alif nga ne xaya war a indi yaaw nasab ñuy kasaat ko li ko jëkk te li ko jëkk alif moom du nangu xarak ñu xalbu ko alif googu waaw xayawiyun moom la ñu fatxu saanihi yajib war dudu dellool dellool alif ga nag waawan waaw in yakun ndegam dafa nekk xuli ba ñu wëlbateekoon ko ci waaw lu mel ni baatu tawaa yat wi soo andi woon masdar ba ni tayyun tayyu moomu turu lëf la loo xam ne da ngay askane jëme ci ndax bu la neexee def ko turu nit bu la neexee def ko turu leneen nee na kon tawa wi jun ngay wax ndaxte ah soo fata soo soo bëggee ki la comme tayyu yaaga yaagu jëkk ga comme xayu ni nu wax danga koy fata min tay soo ne paya boo demee ne paya fekk nag itam yaagi waaw doon cosaanam li annahu min tawaayatu fokk nee na danga ko delloo ci waaw ndem ci lañu ko xalboo ko woon nga ni tawa wiyu baat bi waaw wi lañu xalbu woon yaa li ko def mooy dafa waaw ak yaa dañu faa daje te ka jëkk sukkoon kooku nag ci qaida tasrif bi fokk waaw wala ñuy xalbu yaa tawaayat wi dégg nga nga xam ni faala la juy mutaaddi qiyaasu masdaram faalan tawaa tawyan lawaa lawyan ñu ne waaw ak yaa bu ñu dajee te ko jëkk sukkoon fokk ñu xalbu yaa gi waaw waaw yaa nga ni tayyan ak layyan léegi nga def ko mansub ilayhi fokk waaw day del si ndem moom la woon nga ni tawawiyun ak lawawiyun mooy wardut waawan in yakun su fekkee dafa nekkoon xuliba ñu xalboo ko ci waaw wa alamat tasniyati xisif maanaam mansub ilayhi su fekkee alamatu tasniyati dafa caane ñaari xaraf yi ñu nga xam ne mooy mandargam tasniya te mooy alif ak nuun wala yaa ak nuun moo jokku ca naka noonu alamatul jamci dana dana ko wax léegi nee na kooku ixdif xasafal alamat tasniya alam bi maanaa alamatu alamat tasniyati li nasabi pour ba ngay askane jëme ca baat zaydaani muy nag wa mislu za kem loolu xasaf googu wajaba war na fi jam i tasxiix bu doon jam mudakar salim bu doon saydoona wala mu annas salim ni ki hindaatu nee na dana war nga xasaf alamatul jamci baag alamatul tasniya ba nga ne tey zaydiyun su ko defee ci zaydaani ak saydoona ak yëpp ak zaydina zaydiyun rek nga ci wax lant googu moom duñu ko faale su dee hindaatoot hindiyun rek lay mujj wax da ngay xasal su ko defee foofu faale wu ñu fi lantoog muzakkar ak muannas faale wu ñu fi lantoog mufrad ak jam ndaxte mansub ilayhi rek la ki ngay askan nga am soxla mansub ilayhi amoo ci soxla nga ne jaa a zaydiyu waaja rek nga jub ama zaydu mañ nga xam ne moo doon ba maam jëñu ko askane zaydoona la tuddoon wala zaydinaat zaydaani faale wu ñu la wa salisun min naxwi tayibin xudif nee na xarafu ñetteel lu mel ni tayibun tayibun dégg nga rubaai taa ngi fi ak ñaari yaa ak baa nee na kon nag ah bu ñetteel ba la ñu war a xadaf rek bàyyi baat bi noonu nga ne tay bi nisbatun ila tayib dégg nga loolu mooy qiyaas tay bi ah nee na kon wa shadda génn na qiyaas walis boobu qaacida taa'iyun nisbatun ilaa qabilati tayyi'in tayyi'in kooku tayyiyun ni ci waxee taybiyun tayyiyun moo doon qiyaas arab nag waxuñu ko taa'iyu lañu xaatim ak taa'iyu taa'iyu nisbatun ilaa tayyi jaarul ci qiyaasam ndax qiyaasu taybiyu qiyaasu tayyib ci nasab moo di qiyaasu tayyi ñoo tolloo wasnu waaye kii moom chaag day chaag day bari ci seen bu dee jam u dana ci am tasniya am na chaag tasxiir am chaag chaag foo dem fekk fa lu jaarul ci qiyaas ta si génn na ta yun génn na qiyaas xaala kawnihi maqulan bil alif muy lu ñu tudde lu ñu waxee alif bañ a lu doon qiyaas benn yaa bi dañu koy xadaf rek ñoom nag wala ñu xadar ko mu xal bu ko alif maanaam dañ ko faroon bàyyi daal ne pay yi waaye da doon ñaari yaa pay yi in pay yi in ñu xal bu ko wa faalun wa faaliyun fi fai waaw wa fualiyun wa faaliyun fi failata altusim bu njëkk bi dañu ko war fata faaliyun ci wasnu failatun niki xanifatun banu xanifata xanifata ismu qabila la failatu la soo dee askane jëme ci ah kooku faaliyun lañ cey wax comme que moom saxiixul ayni la kon faaliyun su dee su dee muctal lul ayni wala mudaafal ayni kooku nu bàyyi ko ba àgg ca nga ni kon xanafiyun wa fualiyun it fi fuaylata xutim fuaylata ni ki juhaynatu ismu qabilatin nee na soo ko dee def mansuub ilayhi faaliyun ngay andi nga ni fualiyu juhaniy juhaniyu joo dégg nisbatun ila juhaynata xutima waraleef na ko ci loolu wa alxaqu yéegal nañu ci atte muallala min lu ñu ràggal laamam ariya goo xam ne raflewu na ci haawu tanis niki du faaliyun rek la maanaam xanafiyun maanaam lu mel ni ki nga xam ne haawu tanis nekku ca daal moo xam failatu la woon nga xam ne failun dong la wala fuaylatu la woon nga xam ne kii moom fuaylun rek la nee na ki nga xam ne laam nga dafa rag aywa te haaw taanis rek moo ko tee doon failata wala fuaylata nga xam ne failun rek la wala fuaylun te laam nga rag kooku yéegal na minal misaale ni ci yaari misaal yi mooy bi ñu daama njël benam bi ñu ko fataa kooku yéegal nañu ko bimaa ca wasnu ba nga xam ne uliyo jox nañu ko taa du dëgg dégg nga xaliyun failun rek la aliyun fai maanaam yooyu failun rek la ni du dëgg waaye lu mel ni ki masalan qusayun masalan qusayun fuailun taa rek la moo ko wuuteeg fuailatu yooyu moog lu ñuy joxtaa ñooyam nisbatu fa nisbatu ila aliyin failin te laam ga rag alawiyun ngay wax wa nisbatu ila fuailin te laam ga rag qusawiyun ngay wax nisbatun ila qusay loolu mooy maanaa wa alxaqu muallalaani min almisaalayni min failata wa fuailata koo xam ni ariya min attaa'i mu loon fuailun wala failun te laam garag yéegal nañu ko bimaa ci wasnu ya nga xam ni au lieu joxees na ko taa ni nga def ni nga fataa seen ayin noonu nga koy def wa tammamoo maa kaana kal ka tawila mu allalaam nag waxoon naa la démb ni xarafu mu allul ayni mu all ak ak mudaaf ci buntu tasrif toujours ñooy bokk at wa tàmm moo matal nañu maakaana ka tawilati su doon failatu te ayit ga ràgg ni ci tawilatu kon kenn du xasaf genn xarafu ràgg ba déedéet kenn du wax tawaliyun di xasaf yaa ji déedéet da ngay wax tawiliyun wa hakaza maakaana kal jalilati fi kawnihi mudaafan jalilatu ku ne xam na ni min jalla mudaaf la woon su ko defee kon yaam ji foofu nga koy bàyyi de dégg nga ndaxte da ngay wax aljalili yu ndaxte ka ràgg ayin ni ki tawila soo xasafoon yaaham leneen da lay dal du dëgg kon nit waaw gi fokk li qaida war nañu ko soppi alif ngir fataa gi ko dawlu su ko def nga wax la nga ne taa fekk xasaf nga yaag bëggoon ko fataa tawaliyun kon tawaliyun taaliyun ngay mujje wax te kon mu sore cosaan bi aywa jalilu yi soo dindi woon yaa gi def ko ni nu bi nga daan def ci failatu nga ni jalaliyun si fa innahum karihoo tawaalil misaalayn toppanteeg ñaari laam ak laam gi noonu foofu dara doxul seen diggante moom la moo jekkul ci seen waxin ñu ne bu ñu la wax jalaliyun jalaliyun ñu ni jaliliyun moo leen ko gën wa hamsu zi maddin yunaalu fi nasab maa kaana fi tasniyatin lahun tasab hamsu bi nu waxee newoon nañu hamsa maqsuur lan doon wax ci xubla ak yooyu fa ñu ko war a xabafe kese su fekkee dafa juróomeel ak fa ñu ko nga xamee ni yaari anam dagan na ca ba nga xamee ni dafa ñeenteel te njël benn ga doonuk sukkoon dégg nga kon loolu waxoon nañu ko niki xubla aywa waaye bu doon mamduut nag nee na niki xamraa u nga bëgg ko def mansuub ilay kooku leneen ay am lu dul xadaf nee na kon yunaalu fi nasabi dañu koy jox ci askan maakaana atte ba nekkoon lahoo ñeel ko maan tasaba la askanoo woon lahoo ñeel ko ci tasniya ak jamu muzakkari salim te foofa xoolal su xam saga dee gu gu cosaan ni ki qurraa un bàyyi ko fa noona nga ne qurraa iyun su fekkee ni dafa nekk di jàmbur mën a dafa nekk di tanis rek ni ki saxraa u nee na kooku na nga ko na nga ko qalbu nga ni saxraa wiyu lu dëgg su fekkee ne nag dafa nekk di maqlub an asli ni ki kisaa un ak xayaa un kon yaar yëpp dagan na ca nga ni kisaa aani mbaa kisaa waani du dëgg du loolu nga waxoon loolu waxoon fële ah kon it noonu ngay def ci nasab bi que ni kisaa iyun wala kisaa wiyun loolu wansub li sadri jumlatin wa sadri ma rukkiba masjan wa lisaanin tamma ma idaafatan mabduwatan bismin awab aw ma lahu taarifu bisaani wajab فيما سوى هذا منسوبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهر wansub askaneel li sadri jumlatin ci njëlbeenu jumla su fekkee ni jumla da nga koo def aw tur ni ki shaaba qarnaaha baraqa naxruhu yooyu ñaari jumla maanaam yu ñu toxale ci maanaam jumla tudde ko def ko aw tur te ku ci ne jumlay fi'al la woon fi'al ak faa'il la ñu woon mu doon tur alam ngay askane jëme ci kon askaneel li sadri jumlatin ci yow yaari misaal nga ni shaabiyun nisbatun ila shaaba qarnaaha baraqiyun nisbatun ila baraqa naxruhu wa sadri ma rukkiba masjan ak njëlbeenu loo xam dañ ko tar tarkibul masjid ni ki baala bakka nga ni baaliyun xadra mawta nga ni xadr xadriyun wa lisaanin askaneel jëm ci aji ñaareel joo xam ni tàmmama dafa matale idaafatan ak laafe mabduwatan ju ñu tàmbalee bibnin ci ibnu niki ibnu abbas aw abin wala abu niki abu bakr nee na kooku booy askane jëme ci woowu tur askaneel jëm ci ñaareel ba wansub lisaanin ay lil mudaaf ilayhi tàmmama joo xam ne dafa mottali laafe goo idaafa goo xam ne ña ngi ko tàmbalee ibnu aw abu ibnu abbas abu bakr nga ne abbasiyu wala bakri aji ñaareel waaye doo wax ibniyu aw ma te doo wax lépp itam kenn du ni ibnu abbas yi yéen aw ma wala booy aseen kene jëme ca la nga xam ne ak taarifu maarifaal ko bi bi saani ci aji ñaareel ja wajaba dafa waroon ca cosaan ni ki xulaamu zaydun soo ko defee alam tudde ko dara tey mu nekk alaman bil xalabati mi nga xamee ni ibnu abbas genn nit moo ko moom ca doomi xulaamu saydin soo ko defoon alam bil xalaba nga xam ne boo nee xulaamu saydin rek ñun ñu ni diwa ngay askan jëme ca ba tey kon na nga askan jëme ci ñaareel ba nga ni zaydiyun du dëgg waaye doo wax xulaamiyun ah loolu nag fokk nu ni ndegam da nga koo soppi def ko alam amma soo ko bàyyee muy mu daaf ak mu daaf ilayhi ca cosaan nga xam ne walaam nakira la zayd ma ay faal ko kooku ñaari baat yu bokkul maanaa la ba tey kooku comme du alam na nga bëgg rek ngay def su fekkee ni loo xam ne xulaamu saydin la nga askane xulaam ba rek nga am soxla bu boobaa mën nga ne xulaamu jën wala sayd nga ne saydi jën du dëgg ci googu ba nuy wax kay mooy bi nga jëlee xulaamu saydin def ko turu alam rek kon nag saydi yu rek ngay wax ko moo tax taarif bi saani ca ca njaal benn kat dañu ko deful alam lan wax amma bi mu xasee doon alam taarif amatul foofu lépp alam bi rek mooy maarifaal boppam moo tax aw maa la aw aw maa wala sooy askan jëme ci la nga xam ne wajaba war na taarifu taarifu la wali bi saani kooka yaani ca cosaanu wat ba moo tax muy wax du dëgg waxul ba nga ko ci jëlee def xulaamu saydi muy alamu tur de kon saydi yu ngay wax dégg nga wan sub askaneel li lawwali jëm ca bu jëkk ba ca mudaaf fii maa siwa haada ci lu bokk la yi yii mu la waxal dégg nga wan da nga askane jëme ci bu jëkk ba ci bokkut ak yooyu nu waxoon ni ki nga lu mel ni ki imruul qays nga ni imri iyun du dëgg imruul qays bokkut ak yooyu nu doon du doo du loo xam ni mu daaf mu daay lay mi qays da doon moo maarifal imru déedéet imrul qays aw tur noonu loolu na nga askane jëme ca bu jëkk ba ni ki dégg nga maalam yoo xaf labsun féeg ragaluñ ca lënt nag su fekkee mu daaf ilayhima dafa bare lool ay ndend te mu daaf ma te mu daaf ilayhima moom du amu ko ñu ragal ca lënt ni ki abdul ashhal tur lay ci arab bu nga xam ne dañu askan jëme ca kon waxal ashhal yi ndax soo ne abdi te abdul ashhal nekk foofa abdu manaaf nekk fa abdul muttalib nekk fa abdul abdul manaaf nekk fa lënt day dikk soo dee wax abdiyun kon léegi mu daaf mi nag dañ ko ba def ci mu daaf mi léegi nga ne ashaliyun manaafiyun muttalibiyun shamsiyun abdu shams mu ngi foofu abdu manaaf nekk fa abdu mut kon nga askan moo la ni feeg ragaluñ ca lënt kon bul wax abdiyun waxal manaafiyun wala muttalibiyun wala ka abdil ashal nga ne ashaliyun واجبر برد لا ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع تصحيح في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفيق نينا لسم سفك يعني حرف مجي واللام قد يكو حذفون تكن داوكو دلوسي شبوكو جمع جمع التصحيح ولا جمع jamu tasxiix daal jamu tasxiix boo ko déggee rek mooy ju ñu dammatewul ju taksiirul taksiir sa kasrul kalimati moo di xilaafu tasxiixihi waaw jamu tasxiix kon muzakkar saalim ak muannas saalim rek dégg nga lu mel ni yadun daal ak damun dégg nga lu mel ni yadun su fekkoon ni yaa ngi askan jëme ca def ko aw tur di askan jëme ca dégg nga kooku delloo si laamu baat ba du doon waajib dëgg ndegam nee na daawuñu ko delloo si ci jam uy tasxiix ya jam u tasxiix bi su fekkee kenn daawu ko ca delloo kooku bëggee def muzakkari salim ak mu annas salim nee na kon boo ko dee askan booy boo delloo si la nga bañ a delloo si kon yadun dégg nga soo doon askan jëme ca su la su la neexee ni yadiyun wala yadawiyun lu la ci neex wax ndax yadun kat na nga xam ne laamu baat ga yaaguñu xasab la yadiyun moo doon cosaan waaye nag kenn du ko delloo si su fekkoon da nga koo defoon tur doon koo jamu muzakkar salim it yadoona dong ngay wax ak damuuna ndegam defoon nga ko tur ay góor di ko jam ci jamu tasxiix dégg nga amma li tax mu ne tasxiix nag da ngay xam ne jamu taksir delloo si laam nga ci jamu taksir xayru mu atabar da kay yadu soo ko jamoo taksir ay dii ngay wax gisuloo yàgg nga di afulun jam yadun yaduyun la woon soo ko jamoo afulun nga bëggoon ni ay du yun ñu ne ah dàmm du jiitu yàggu mujj noonu su ko defee nga soppi kaso nga ni ay din fil ay dii ay diyahum gisoo yàgg ni ñu ko delloosee waaye ci jamu taksir la jamu tasxiix nag lanu lanu lanu compté su fekkee ci jamu tasxiix kenn daawu ko ca dellu yadu nag damun soo ko defoon ay tur askani jëme ci yadoona ak damoona rek ngay wax boo koy tës ne yadaani ngay wax yadaani te yadaani ngeen di gis ak yadayni ah xaslul yadayni su fekkoon ni lam barga dikk na ci tës ne looy wax yadayni ngay wax waaye andi woo ko gannaaw daayee su ko delloo si kon ak delloo si yam ci nasab jawaaz la su la neexee ni yadiyun bu la neexee ni yadawiyun yàlla woon ci cosaan nag waaye xam nga ni waaw lay doon ah ndax da ngay fataa daal gi soo fataa daal gi yaa yaaga soppi ko alif mu nekk yadaa alif gu mujj noonu ñu di ñu yaaw nasab dikk dañ koy xal bu waaw toujours kon yadawiyun ndax duñu ni duñ fa bàyyi yaaga naan yadiyun seet seetal loolu ay kasra yu du jeex yaa ñetti yaayu tegalo wadi moom la ni waj bur jàngal baat bi raddi laami ci delloo si xarafam bu mujj wal waj bur da nga naan jàngal maa baat ba nga xam ne xasifa minhu xadaf nañu ca na nga ko jàng bi raddi laami ci delloo si laamam dem dañoo xadaf woon laam nga ni ki nga def ci yàddu noor loolu waajib la wala du waajib mu ni jawaasan la rek jawaas la de ci kaw in lam yakku su nekkut radduhoo delloo si ga xasifa ulifa jumi noon ko si jamu tas bu fekkee da daawuñu ko delloo si ci jamu tas kon léegi jawaas la ci yow amma bu ñu ko dee delloo nag ah kooku foog nga delloo si ko moom la ni wa xaqu majburin bi haadi xaqu loo xam ne dañu ko daan jàng bi haadi ci yaar yii ci jamu tasxiix ak tasniya ah kooku xaqam mooy tawfiyatul matal delloo si laam nga su fekkee bu ñu ko doon jamu tag tag si tasxiix dañu koy delloosi kooku nag fokk booy nga delloosi ko yow itam fokk nga delloosi ko lu mel ni ki tey abun ak axun soo ko doon tës ne loo wax abawaaneeg abawayneeg axawaaneeg axawayni ah kon kon kon kon da nga koy delloosi fokk nga ne axawiyun ak abawiy du daganati nga ne abiyun ak axiy ndax kooku olifa miinees na radduhu fi jam it jam it tasxiix mbaa ci tasni wa xaqu loolu mooy li mu ne wa xaqu majburin bi haadi xaqu lu ñuy lu ñuy jàng ci yile ci ñaari jamu tasxiix yi wala tasniya akam ci nasab mooy tawfiyatul matal ko delloo si laab ni ki abawi ak axawi mu ni ba tey wa bi axin uxtan wa bibnin binta alxeq wa yoonusu aba xajbatta nee na soo dee askane axu uxtu yéegal ko ci axu da nga daan wax axawiyun waxal waxal ci uxt uxawiyun loolu mooy madhabul jumhur wa alxiq yéegalal bintan bibnin alxiq uxtan bi axin wa alxiq bintan bibnin nga ni ni ngay waxee axawiyu te kooku passé nanu ko dégg nga ngay waxee uxawiyu des maanaam nisbatun ila uxt ni ngay waxee banawiyun bi nisbatin ila ibnin noonu ngay waxee bina wijin nisbatun ila bint loolu ala mazhabil jumhur xilaafu kon yéegal nga uxtu ci ax yéegal bintu ci ibn loolu mooy mazhabu jumhur mazhabu yunus nag min al bisriyin bañ na nee na nee na uxtu ak bint moom seen lafz boobu da nga na uxti yu ak bint yu loolu la ni wa yunus yunus de rek ah bàyyi na wàcc naag jumhur yaag seen mazhab moom aba bañ na xadfa taa xadaf taa ci uxtu ak bint fayan fayan fayansubu ilayhima ala lafzihima fa yaqulu uxtiyun ak bintiyun jumhur lu ñuy wax uxawiyun ak binawiyun ilxaaqan lahuma bi axin wa bibnin la noo dem wa baaci fi thaniya min sunaa'i saanihi zolinin kala walaa'i su fekkee ni baat ñaari xaraf rekk la pour wu ñuy askan jëme ci ñaari xaraf rekk la te xarafu ñaareel wa doonul wu wér melul ni ki bal bal kay suñu ko defoonu tur ngay askan jëme ci amul amul problème da nga naan baliyun nisbatun ila bal lu dëgg waaye nag xarafu nooy la ni ki laa laa lu dëgg su fekkee dafa mel ni ki laa moom mansub ilayhi lisim la jooxaani xarafu ñaareel wa ñaari xaraf la tewu ñaareel wa xaraf wu nooy la xarafu ràgg la nee na kon nooy def nee na na nga ko ful laa alifa ca mujj dolli ko alif alif ci gannaaw alif lu muy doon hamza du dëgg alif ci gannaaw hamza alif foog ñu soppi ko hamza nga ne laa iyun nisbatun ila laa mooy moom la ni wa daif dubleel asaaniya xarafu ñaareel min suna iyin ci ko ju ñaari araf yoo xam ne saanihi ñaareel ba zooli nin borom nooyaay la xarafu ràgg la niki laa ak laa iyun ma ngay xani laa mooy mansub ilayhi laa iyun mooy mansub bi kon laa iyun ngay wax dégg nga kalaa ci lisim ji nuy wax askanam kalaa iyin mooy la ñu askan wa in yakun kashiyatin malfa adim fa jabruhu wa fatxu aynihi iltusim wa in yakun bu nekkee maa lisim joo xam ne adima ñàkk na alfa afa dañoo xasafoon faawu baat ba mu ne loo xam ne li kashiyatin dafa mel ni shiyatin ah shiyatu ji firi maanaa aw melo couleur yu wuute ndax cosaanam washi wishi yun dégg nga wishi yun wishi yun moo doon cosaan ñu xadaf ni ni ki weedun min waada ñu dindi waaw faaga doon waaw wàccee ko xaawu taanis ci mujj siyatun nag mujj ga dafa ràgg moom lisim ju mel noonu ah nga xam ne ñàkk na te ñàkk na xarafu njël benn te laam nga dafa ràgg nee na soo dee askan jëme ci kon jànkote mooy delloosi la nga xadafoon waawa ak fata ayin ga nee na kooku dana war ndax mujj ràgg nga nga ni kon boo delloosee looy wax wisha wiyin li mu wax daal baatu siyatun su doon tur woo askan jëme ca wisha wiyun ngay wax da ngay delloo si faawu baat da ngay fata ayin gi mooy siin si su ko defee xarafu ràgg woo mujj soppiku alif nga ni wisha alif bu ca yaawu askan toppee noo koy def xal bu ko waaw ndax foog nga kasra ko te xarak alif nanguwul xarak ah te soo ko bàyyee ci yaa musiba am kenn du ko mat soo nee bëggoon ni wisha yi yin lu dëgër loolu xam nga ne duñ ko wax yaaguñu kasa kasaraat yu ànd ak maanaam kasara yu ànd ak ñetti yaa loolu duñ ko kon lu luy pexe alif ga def ko waaw nga ni wisha wiyun delloo si nga laamu baat gi ñu xasafoon ay wax xal bu nga kii ba yaa ndax xarafu ràgg la wuteeg idatun ji firi daal du dëgg su idatun soo delloo soo delloo si woon kii kooku doo doo doo doo du tax nga xal bu ko yaa daal xarafu wér la du dëgg kon kon da nga koy bànnoona maanaam kon dafa ni bu fekkee dafa mel na siyatu ci ràggu mujj la ni da ngay fokk nga jàng ko delloo si laam